وهو الذي من أدرى أنه وما تدبر فيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته as ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay nuyoo di nuyu mbokk téléspectateur yëpp Nasrou Média TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa biir réew waa bitim réew yëpp di jiital ci nuyo bi sey Assane kan di ñaanal sey Assane kan mu yàgg fi lool te ànd ak wér sey Assane kan yalla fi yàgg lool te ànd ak wér di yeesal sunu njëbbal ci sey kan di ko wax ne ko jëbbal nañ ko sunu bopp aduna ak lum nu digal ñu def ko te yàlla bu mu ñu gis ci lu ñuy tere nañ ko sunu bopp aduna ak lum nu gis ñu lum ñu digal ñu def ko te yàlla bu mu ñu gis ci lu ñuy tere as dangaa wax wax ju am solo muy rab ñu dellusiwaat ci fajum cosaan mhm. eh, rab lu doy waar la ci société bi ndax soo nee rab rek hmm. dugal nga jinne foofu la ñuy njëkk a ubbee ndax eh, jamono ji werante yu bari dafa am ci diggante rab hmm. ak jinne ñii naan rab am na ñii naan rab amul ñii naan jinne mooy rab ñii naan rab mooy jinne hmm. ku nekk di wax sa wax waaye as koo gis muy différence diggante jinne ak rab rek xamul jinne te xamul rab jinne mooy rab jinne mooy rab amuñu beneen différence dama mel tey nga ne seen différence ni nga ko mën a xaymaa tubaab ak naar hmm. yépp doomu aadama rek lan hmm. noonu la jinne yi mel rab moy jinne jinne moy rab mag ñi ñoo jël benn parti jinne yi def ko seen arme ak seen ngànnaay niñ ko jëlee benn parti jinne yi ndax jinne boo ko xoolee ñetti par presque ñetti xeeti jinne ñoo am ñetti façon jinne ñoo am bi njëkk mooy jinne bi nga xam ne dëgg jinne safara la ak beneen jinne bi nga xam ne dëgg-dëgg jinne ngelaw lay doon mooy invisible ak jinne yi nga xam ne ci mala yi lañuy nekk mooy jinne yi ñuy wax mooy loolu la ñuy wax rab mooy jinne yi féetewoo mala mm-hmm. parce que mala yëpp am nañ ay xeeti jinne ni ko doom ni ni mu amee ci yeneen wàll yi ndax tey ji xar am na jinne mm-hmm. fas am na jinne jaan ba ci gunóor yu ndaw ndawaani am nañ ay jinne di nga dëkk ak ginne sa biir kër mu nekk gunóor wala leneen te doo ko xam mën nga dëkk ak ginne sa biir kër te mu doon xar wi nekk ci biir kër gi mën nga jëkk ak sa biir kër mu nekk fas wi nekk ci biir kër gi benn dong laa la ci décrire bu njëkk bi ñuy wax xaru seereer ñépp xam nañu dañu wax ne lii xaru seereer la hmm. kenn du ko dóor kenn du ko gaañ loo ko def mu mu woy fu répondre ci yow ak li ñu fas wu dafa am gaaf mooy fas yu ñuy wax jinne la rek hmm. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ci mala yi la ñuy féetewoo mag ñi nag ñoo jël mala yooyu jinne ji nga xam ne ñoo wo mala yi indi indi leen seen biir kër nga xool tey bu ñuy wax kawlax jinne ji ne rab yi ne kawlax mboose bar la bar la moo ne ku ne rab la mais jinne la mais xeetu rab la yor ñu ne jaan la ak yeneen wàll yi mag ñi nag bi ñu leen indee dajale yenn jinne yi ba indi leen seen biir kër casé leen benn barab mooy li ñuy wax ay xàmb wala ay tuur am na ñoo xam ne def xàmb yi ci wana bi am ñoo xam ne da jël benn néeg spécial fa nga denc say say say bagage kenn du fa dem ku dul yow. léegi nag su yàlla dogalee kenn dem fa ba mu daane ba mu jàpp ko ba dugg ko li indi baatrap mooy fristel fristel la ko fu ma faramfàccee la ko bu kenn duggee ci suma sama xàmb man ba daanu fa. bu ne diw de moo daanu fee dama naan rab yee ko jàpp parce que foofu rab yi ñoo fa ne. Hmm. am na xam yoo xam ne boo nee jaan nga fay fekk am yoo xam ne boo nga fay fekk am yoo xam ne barab nga fay fekk am yoo xam ne xuloolu am yoo xam ne nàngam mais xeetu malalam lay bindoo mais jinne la loolu mooy différence bi moo tax naan rab am na ñii naan jinne moo am ñi rab amul ñii naan jinne mooy rab ñii naan nàngam mais benn dong la jinne mooy rab hmm. ñu xamee ko noonu aas hmm. kon tegtal bu njëkk bi mooy loolu nan la jinne nan la rab di manifester wo ci doom adama nan la koy yàqale ak nan la koy defaree dina defar mm-hmm. mag ñi bu ñëk defar lañ ci dugulo won ndax euh, bo jëlé sa sa sa sa sa yi nga am yépp tek ko sa biir kër mu jël ay jinne nga xamante suba bo xé mm-hmm. dinañ la leeral né la nangam ak nangam si kaw défé ak ñom li nga wara ak ñom man ma xey jël sama soow dem ci samay tur tour wax ak ñom ñu leeral ma man mm-hmm. li war a xew ci bëccëg bi am na loo war a am ci dëkk bi lu war a am ci danger lu war a am ci jàmm lu war a am ci leneen dañ la koy leeral ci bëccëg ci bës bi su guddee ñu leeral la li nar a xew suba waaw ñu leeral la li nar a xew suba loolu jinne yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy def ci say xàmb noonu la ko mag ñi daan defe di ko aare seen bopp hmm. euh, léegi nag loolu yëpp dafa tasaaroo ndax ñi doon aar ak xàmb yi tuur yi jinne yi mag ñi danoo wàcc liggéey ñu des si ñun gone yi nga xam ne toppatootuñ ko hmm. da gis kër goo xam ne amoon na ay tuur ñu daaneel tuur yi def fa nga gis kër goo xam ne xàmb ya fa nekkoon ñu nga fa ñu daaneel ko tabax fa duus hmm. nga gis kër goo xam ne ay xàmb nga fa kenn dootu ko toppatoo bu ko defee nag dañuy comme kër lañ leen defaloon muy xàmb yooyu nga xam ne daawuñu yàqal kenn dañuy dëkk ci seen kër hmm. ñu leen di toppatoo duñu yàqal kenn te ñuy defaral buñ ko yàqee tasaare ko toppatootul leen dañuy wëlbatiku nag ci njaboot gi mooy waral jëll yi ci école yi jëll yi ci hôpital yi ñun tasaaroo jinne yi tasaaroo nekk ci école yi nekk ci hôpital yi nekk ci marché yi mm-hmm. ñu seen yoon nekkul sax dañ leen di jàpp parce que amatul fu dëkk kenn kaseetu leen benn barab bu njëkk da nga daan dégg benn dëkku sàngam village sàngam ñu ne tey la ñuy tuuru dëkk bi yépp dañuy génn génnee seeni sarax tuuru ñaan yàlla def li ñu war a def yëpp suñu borom dimbali leen boppam. léegi loolu amatul dax xale yëpp léegi ñenn ñi ay intellectuel lañ jàngi nañ ba ñëw gëmatuñ loolu ñenn ñi beneen wàll lañ féete gëmatuñ loolu léegi nag jinne yooyu nag ñoo tasaaroo ci jamono ji def ay yàq-yàq yu bari mm-hmm. ah li muy yàq moo ëpp li muy defar rab yi. Mm-hmm. li ñuy yàq moo ëpp li ñuy defar. Mm-hmm. defaratuñ dara dañuy yàq rek. am na ñoo xam ne tey jii rab bi nga nekk yow day tasaare sa wërsëg. dara du toog sa loxo loo yor day dem da ngay xëy di liggéey su 24 heures sur 24 mais munoo ni lii maa ko dajale xaalis bu ñëw soxla da ko fi fekk mu dem da ngay am xaalis léegi gagné benn marché xaalis bi dajaloo léegi sa doom feebar nga faje ko ci dara du fa toog nga gagné sa nga am sa xaalis léegi dajale ko weer wi denc nga weer wee denc nga weer wala ca topp denc nga ba mu bëgg a doon ab som sa jabar feebar nga faje ko ci rab la nga dajale legi ab khalis ba muy bëgg doon som nga ne nangam la ci bëgg def yow ci sa bop nga am soxlo bu ne këtt ne jonn day tassari khalis am na ñoo ne rab mo yàq seen alal ñu yor dara am no xamni fu dem duñ fa liggéey liggéeyukaay bu am dañ fay joggé da leen fay jëlé da ngay dem ñaari fan ñet xulok sa patron du ngeen am jam. du ngeen am salam. mu jéppi la wala wa euh, société ba di la xeex li nga andal la mënoon nañ laa bëgg au début mais fin bi duñu la bëgg foo dem doo fa toog am ñoo xam ne bu ñu demee ci liggéeykaay léegi balaa am fan dañuy daal di jóge foofu seen xol du fa neex ñu jóge fa am ñoo xam ne luñ dugg mu yàqu te rab a koy yàq amul lenn lu ñuy dugg te du yàqu da ngay créer sa benn société crée ci muy démarrer di dem nànk-nànk mu dem ba yàgg mu tasaaroo rab da koy def non seulement du yem ci war sa bi da lay tëddal rab day jàpp nit tëral ko doo nekk ci jàmm doo nekk ci salaam. mën nga dem kër docteur ñu ne la da ngaa jabet fekk jabetoo rab moo ne sa biir yaram bi doo am jàmm doom salam salaam toujours sa yaram day met day mel da am lu ñu rocc ci sa biir yaram am na ñoo ne seen fit moo dul dal day mel dañuy tiit fu toll sa fit du dal boo demee kër docteur ñu da nga am palpitation sa sa xol nangam nangam kër bi te du kër bi dafa am leneen lu la dikk am ñoo xam ne seen bopp du tranquille toujours ñu ngi énervé mm-hmm. toujours ñu ngi jaxasoo am ñoo xam ne chaque fois ñu mer am na ñoo xam ne seen mer ci seen jëkkër la lay xiir am ñoo xam ne seen mer ci seen doom la leen di xiir doom joo am doo bëgg lu dul dóor wala saaga wala xët wala nàngam am ñoo xam ne su sa jëkkër ASC ci yow rek nga feebar soit ngay fóot biir way metti loolu yëpp rab da koy def kon li muy yàq ci jamono moo ëpp lu muy defar dañ la wax naa boo amee rab liggéey du la mën a jàpp ndax rab bi moo lay protéger kenn du la mën a liggéey ñu naan boo amee rab ku la bëgg a jógal mu dal ci koom loolu amul sens rab limi muy yàq moo ëpp li muy defar su la protéger ci sa jëmm nii te lay yàqal sa wërsëg amul sens su lay protéger ci sa jëmm nii te di la ci sa njaboot amul sens am na ñoo xam ne mënuñoo jubóog seen njaboot fekk rab la sa benn doom du la bëgg dañuy dem ba nekk ay borom wërsëg waaye duñ la bëgg duñ la sax fonk duñ la respect fekk rab la am ñoo xam ne kër goo dugg ñaari fan ñetti fan ñu may la jaamu ci njalbeen gi à nga xat fa lool fekk rab la rab mooy def loolu ci jamono kon li muy yàq moo ëpp li muy defar mm-hmm. am na ñoo xam ne rab da leen di xirtal ci ñuy sàcc di jël luñ moomul da dem di jël loo moomul dangay ngay mel nañ la ko xirtal mën nga jël sax soxlawul jël ko léegi maye ko jël léegi maye ko naa koo xam ne day jël ci alali jëkkëram maye te jëkkëram a ngi koy defal lépp mais day dem ci alalu jëkkëram jël maye doyewu ko dara mu nga laajee mu ne gis ko am na ñoo xam ne seen alali jabar la ñuy jël da ngay jël sa takkaayi jabar te doo xam lu la ci xirtal rab la am ñoo xam ne leen di naan loo sàngara da ngay dekk di def loo xamante ni mosoo koo def sa xel mosul nekk sax ci sàngara nga jógtee benn affaire di naan sàngara mën nga ko def ba ñëw toog sa kër di jooy am ñoo xam ne mooy yàlla la leen di xirtal da ngay jéggi sa jëkkër fii dem def naka sudul te yaa ko bàyyi ci biir kër gi fekk li la yëkkati xamoo ko sa rab la am na ñoo xam ne dangay nekk yoroo jëkkër yoroo dara waaye saa su ne sa xel du jóg ci nekk ak góor bu dee jigi góor la saa su ne sa xel du jóg ci nekk ak jigéen da la ci xirtal mën nga ko def ba noppi te du la neex fekk rab la am na ñoo xam ne dañ leen di xirtal ñuy fowe seen bopp muy góor muy jigéen ci masturbation hmm. rab bi da lay xirtal ngay masturbé wu manam di fooy sa aura di fooy sa aura mën mm-hmm. nga tëdd ak sa jëkkër sa jabar léegi ba pare ci moom jóg dem ci sa douche pour masturber wu parce que moom loolu la soxla ci yow li nga def ci kaw laal bi doy la da ngay dem masturber wu waat pour mën a gan am plaisir fekk sa rab la. am na soxna yoo dañuy joteeg sa jëkkër ba pare wéet fee dem ci toilette bi masturber wu raay sa bopp pour jot bànneex fekk rab bi moo la def loolu loolu yëpp dana koy def. Mm-hmm. am na ñoo xam ne lu ëmb mu tuur ko. 3 mois doo ko génn 2 mois 3 mois mu tuuru 2 mois 3 mois mu tuuru doo taxawal benn ëmb. am na ñoo xam ne mère mor ne la leen di defal doom joo judd judd judd balaa bésam di dellusi mu dee loolu yëpp rab da koy def kon li muy yàq moo ëpp li muy defar jamono yi aas. Mm-hmm. kon loolu mën nañ la ko cee tontu pour l'instant. Mm-hmm. ñu xool leneen loo ci rek loolu loolu am na solo lool sëñ bi loolu am na solo lool waaye dama bëgg rek ñu ñëw ci ñaari pàcc parce que bëri na tey nit di dem hôpital di faju fekk rab a nekk ci moom mu faju fu nekk waaye du wér day dem ba découragé sax ci paj day dem sax ba euh, dee gënal ko dund bi ci topp mooy dafay am ñaar ñoo xamante ne nii dañuy sonn lool ci seen àdduna te li ci ëpp rab moo leen koy yóbbee kenn kii moom dafa am faru rab ci li ñuy wax faru rab boo ko sonal ba lëmbe àdduna ba euh, maanaam mënatul dara ci boppam ndax loolu ko topp waaye it ndaw si nga xamante ne nii mënul fexe ba am jëkkër mënul fexe ba ku ko seet si sax mu dàq la ñu ne rab la loo ñuy wax ci ci anam yooyu sëñ maam waa as faru rab lu jara farlu la fofu la ñuy ñëkke ci wax ji faru rap lu jara farlu la as li tax mu jara farlu ñu bari dañ ko sofental faru rap. gis nga faru rap? dañ ko far rek mais jëkkër lay doon ci yow ni sa di mel ak yow non lay mel ak yow li tax muy doon jëkkër ci yow fay nekk ak yow ba ngay xalé mag ak yow du bëgg kenn ku la loolu moy waral coro ngoro go am bala la waajee tak mu tu fe doo xam lu tax mu dàq waa ji mm-hmm. xolu waa ji lay naqaral ci yow rek dootu la bëgg a gis am na ñoo ne nekk ak sa sa coro sa far sa sa sa sa sa coro waaw comme noonu da ngay nekk ak sa coro muy muy tàmbalee neex seen ngoro di neex ba ci biir nga mel ni moom nga bëggul a gis dootoo ko bëgg a gis mm-hmm. te defu la dara bu la wooyee sax dalay énervé bu la wooyee sax ndax sa xol day naqari am jigéen ñoo xam ne bu nañu nekk ak góor léegi muy neex ñu dem ba yaa góor gi dara dootu leen neex ci moom pour ñu gis ko sax problème day ñëw seet si la mu ne nee ko nekkuma fi hmm. fekk rab la faru rab lu jar a dindi ci nit la gis nga faru rab day jàpp nit ba bu amee ci yow doole jëkkër ju am mu rey ko waxuma la tàggoo de am na ñoo ne jëkkër ju ñu am mu dee su ko dee ñu ay gaaf am na ñoo xam ne jëkkër ju ñu am day dee faru rab la am na ñoo xam ne allah kulli aal duñ am bànneexu sëy bànneexu kaw lal mhm. du ko am da koy da koy dox sa diggante digganteeg moom coono rek ngay am ba da ba dalay jara sax ngay lay sa jëkkër naan damaa sonn ak aw ma envie ak nan bàyyi ba nii nan bàyyi ba nii doo bëgg dara ci sëy ndax coono la lay indil am ci ñoo xamante ne nii suñu amee sëy sëy ba day tas sëy buñ dugg mu tas ko moo xam wax a koy tas moo xam sa jëkkëral mooy abandonné moo xam yaa xam mais loo dugg mu yàqu ko ci wàllu sëy faru rab la mo tax faru rab lu jara dindi la ci au début boko dindi wul ba yag ci yow ba jur ci yow njaboot parce que da nga na faru rab fekk yow rab bi yaangi and ak mom jur ay njaboot ci mom hmm? waaw am na ñu xam jur njaboot rab lu bari parce que xolal ma jox la ben exemple borom faru rab day gént ñaari fan ñetti fan mu gént ëmb wasin amna doom am ñoo xam ne dañuy gént liir yi ñu tëralal leen ay liir sawet say njaboot lan am ñoo xam ne chaque jour ñu ngi ci biir xale dañ koy gént say njaboot lan nag soo demee ba tolloog moom fenn fii mu yàgg ak yow faru bi loo dugg ci sëy boo jàmbaaree ba dugg si sëy ñu ñaanal la ba nga dugg ci sëy te dindiwuñ ko sëy ba day dañ wala waaj a dee moom am na ñoo xam ne nag bu dee ci côté feebar bi am na feebar yoo xam ne day lëkkoo ak rab fi mu ñu baree bari dañuy wax tension <coughs> waxoon naa ko ci sama émission bale mhm. ñii di wax jabet ñii di wax damay crise crise épilepsie damay crise nangam lépp day lëkku ci rab lépp day lëkku ci rab fi mu am na koo xamante ni tension du wàcc mukk wala boog bu yéegee du wàcc mukk wala bu wàccee du yéeg mukk docteur yi sax dañuy jaaxle am koo xam ne tension day normal te du am jàmm fekk rab bee ci dugg laxasu am koo xam ne li koy feebar moom docteur xamu ko du wér mais docteur xamul lu ko wopp da ngay def analise bu ne def bilan ñu ne pourtant lépp normal na mais amoo jàmm amoo salaam boo xoolee suukar ñu ne suukar si normal na mais amul jàmm amul salaam buñ ko xolé ci côté cœur bi ñu ne xol bi normal na mais amo jamm mo salam ken xamul fièvre bi lu mu doon am ñoo dañuy daw dajalé plus de 20 fièvre ci sa yaram ci benn jëm tension diabète goutte ulcère nangam sangam yépp te fekk rab la bo fajo rab mu deñ moo tax rab dafa say say ci ni muy def nit su lo bëggee yàqal bu dee crise yi nag daanu yi lu bare baree baree bare rab la amul daanu jël rab jël bu dul rab am lu ci bariwut daanu boo gis épilepsie nangam nangam ñu ko tubaab yi di tuddee lépp rab la mm-hmm. te saa bu lay daaneel xam nga ne yow mi li lay dikkal dikkal na la da lay mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy dégg ay son moo leen di daaneel am ñoo xam ne gis image bu la traverser nga daanu am ñoo xam ñi rek am ay miir yu ndaw daanu am ñoo xam ne dox ba yàgg say la laxasoo nga daanu di wéx lépp rab la kon feebar yu bare bare bare nit di ko topp hôpital soo demee ba nga xamante ni yow ama coo lu dellu ginnaaw mm. demal seeti kër olaf ku xam rab gannaaw bu ci liggéey la raxul mm. luñ la def rab la rab la liggéey nag daf ciy participer jël place boo xam ne ku xamul ba mën a feram fàcce rab bi ak luñ la def mën naa jël luñ la def féetale ko yëfi rab fekk luñ la def la aussi kon dafa jara laaj dafa jara xool ku ko mën a faram-fàcce ba faram-fàcceel la ko waaw ah, loolu moom am nañ ci ak tontu jërëjëf moom xanaa rek euh, sunu mujj gi laaj ak yow rek mooy am na comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeenu waxtaan am na ñoo xamante ne nii maanaam seen biir kër dañ fay am ay xam xam di ko toppatoo mu mel ni seen njaboot di def la wax ca xam ya waaye jékki-jékki yàlla moom leen ñu jóge fa waaye it bañ fa jógee yàlla dogaloon na euh, ñoom tàggatuñu woon seen njaboot ci toppatoo xam yooyu wala. jàngal leen ni nga xamante ne nii moom lañ ko war a yoree ba jóge fa léegi nag loolu des fa di indi gàllankoor ci njaboot gi loo ñu mën a wax ci loolu. bari na as kër yu bari tasaaroo nañ te fekk ñàkk a toppatoo seeni xàmb ñoo tax ñu tasaaroo kër yu bari man suñu famille maa yor xàmb yi parce que ay ay ay jàngkatu tubaab ñoo ci gën a bari li ma ci gëm nii di ko toppatoo ñoom gëmuñu ko gëmuñu ko sax mais léegi nag dogal na man maa yor xàmb yi di ko toppatoo ñaari façon xam am na boo xam ne kenn du ko def ci kër gi mu ngi ci àll bi fii sama tool bi ne fii yeew la àndal bu mag moom lay dëkkal moo tax kenn du def ci kër am bu mag boo xam ne ngi sama biir kër moo yor xale yépp ku ci judd ci lañ lay ci lañ lay ci lañ lay def am ci sa wàll yàlla tere ba yàlla tere su ma fi jóge woon it te awma doom ju ko topp wala rakk ju ko topp wala keneen ku ko topp ñoom dañuy sànku parce que tey jii fi ma leen casé ñoom mu wóor la ne ñii ay mbindeeful suñu borom lan mm-hmm. ma casé leen ci benn barab di leen jox li war ci ñoom ba duñ yàqal xale yi te duñ ma yàqal man mm-hmm. suñu demee ba xale yi xamuñu nan lañ leen di toppatoo est-ce que bu tasaaroo ci njaboot gi du leen yàqal am na koo xam ne day jekki rek dootul dem ci liggéeyukaayam day mel ni bu duggee ci liggéeyukaayam rek fitu day dem du ñeme am kër yoo xam ne dañuy jekk rek xuloo guddi xuloo bëccëg coow guddi coow bëccëg fekk la newoon ca kër ga ci ay tuur moom lañ toppatoowul ñu tasaaroo ci njaboot ji kenn du am ak sa moroom jàmm kër ga day mujj gental kii dem luye fee kee dem dëkk fee kee dem luye fee kër ga gental mm-hmm. mujj lu dul jaay ko nga gis famille yoo xamante ni dara du fa am kër goo xam ne nii la fa maam yi defoon kër ga naat wóor la da danga naan sama baay de bi muy dund kër gi ni meloon dara manqué wul surga yi bari woon na hmm. lépp léegi nag dara amatul boo wuti sax doo am fekk la la fa maam yoroon di ko toppatoo moom ngeen toppatoowul mu raafal kër gi wërsëgu kër gi lay téye kër gi doo am dara day am hmm. ku fay yeewoo doo am dara am kër yoo xam ne koy tasaare ku fa yeewoo doo am jàmm day naqari am ñoo xam ne ku fa yeew kër yu baree bari ay boo leen ko toppatool ay wéri di xel ñoo fay ëpp am na ñoo xam ne dañuy dox ba noppi di dox mel ni nit ñi te fekk danoo dof ci seen xel mm-hmm. duñ réaliser dara moo tax toppatoo ko day gën ñàkk koo toppatoo ginnaaw am na ba pare ginnaaw am na ba pare mag ñi def nañ ko fi ba pare mm-hmm. fexeel ba bu mu yàq sa diine fexeel ba bu mu yàq sa diine ndax ne nañ xërëm la fexeel ba mu yak sa diine man na bañ ñak sa diine parce que la nga lo mom nga diko def jaamu woko hmm. dafa am start bu war ak mom rek yow iya ak mom rek start bi war yow ak mom mom ngay def mais jaamu woko yalla ngay jaamu mais hmm. tay ma am sama xar ci biir kër gi xar bi du sama yalla mais hmm. ma koy xont ma koy dundal xar bi am lu may servir ci biir kër gi ndax lélé ñu né la yéwal ben melo lu nara dal ci kaw dal ci dal ci ben melo bi nga di ko xont mais du sa yàlla loolu la bu la yàqal sa dara mais toppatoo ko te yàlla rek tax ndax mag ñee ko fi defoon te la tax ñu def ko fa xamoo ko te couvrir na leen ban jóge fi couvrir yow ak sa njaboot ak say waa kër benn parti la motul un mètre ñu def ko ci kër gi moo xam lañ fa sam moo xam ndaa lañ fa teg moo xam ak weñ lañ fa teg moo xam ab ab ab njaq lañ fa teg luñ fa mën di teg ba mu wóor la ne lii moo doon yëf toppatoo ko boo xëyee baleel def ndox bu dee ndox lay laaj bu dee soow lay laaj defal soow cent franc soow yàqalu la dara mais moo gën muy muy muy muy détourner sa àdduna di yàq sa vie am na ñoo xam ne da leen di jàpp ba dootuñu tal sax jaamu yàlla mais bu sa xel demee nooy jaamoo yàlla bu la bu la problème jiitalee nooy jaamoo yàlla bu la fitna jiitalee ngay daw dépense mënoo koo am nooy jaamoo yàlla ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne day day day sëkkatal nit ki ba du tal diineem te boo toppatoo woon loola mu dalal la nga tal yàlla suñ borom du jaamu yàlla jaamu yàlla ak wàllam buur yi ak seen wàll du nu sunu yàlla du nu sunu dara mag ñee ko fi def ñu di leen toppatoo ngir jëmm yàlla wékkuñu ci ñoom dara mbindaa la rek comme ni ko yàlla binde ñu di leen toppatoo mais ñi fi am ay jinne bari na ah mm-hmm. dëkk ak ñoom ay taalibe jinne mm-hmm. dëkk ak ñoom mais duñ seen dara mm-hmm. da leen sant mission ñuy dem am na fi ba tey borom jinne yaa ngi fi di sant mission ñuy dem mais duñ seen yàlla yàqaloon leen dara waaw kay as jërëjëf maam wax jooju leer na ñu ñëwoon rek ci rab rab ak euh, société bii rab ak doomu aadama yi rab li muy def ci nit waaye rab li mu mën a gàllankoor ci doomu aadama tey moo doonoon suñu waxtaan waaye it maam li ma xaw a jaaxal rek mooy am na ñu bëri ñoo naan damay woo jinne dama bëgg gis jinne dama bëgg euh, jinne woo jinne pour mu may ma xaalis wala pour am jabaru jinne loolu mën a wax ci loolu maam. ak ah, jinne mayewul dara jinne mayewul dara day jaay. jinne mayul dara woo jinne amul sens wool yàlla suñ borom wool yàlla suñ borom mooy li woykat wi di wax ne su la sa yaay mayee ñax la su la sa baay mayee ñax la waaye su la sa doole mayee du la ñax de loolu la jinne su la mayee day am lu mu lay laaj waaw te soo ko noppee defal la nga koy defal mu troxal la day nangu la mu la joxoon waaw maa la ko wax jox ma nag bu ñuul ma may la 3 millions nga jox ko nag bu ñuul mu may la 3 millions 3 millions yi jeex nga dem fa nga ko defee woon mu ne la indil ma ñaari nag yu ñuul ma may la 3 millions ngay ni ñaari nag yu ñuul da ngay dema dema dema dem ba dugg nga ci biir xuus nga xuus a xuus a xuus ba dootoo mën a génn ndax ngay aduna gan na la hmm. waye fi ngay yam ci sacrifice ëpp na la doole té lum la laaj day laaj de doublam sa bu la laajé li rek bu suba mu laaj leneen sa bo ci noppé def rek kalé na barrage bi dalay toroxal amul sens dama bëgg jinné ju may may alal dama bëgg jabari jinné dama bëgg jinné yi ma amul sens jinné amul sens as amul sens man ba may am jinne booba xale laa ba may xaritoog jinne astafurlaa ba may am xaritu jinne booba xale laa xam nga booba ñaataat at la am. Hmm. presque dix neuf ans vingt ans. am na samay xarit yu bari yoo xam ne dañoo foog ne damay ko bi may xale bi may xale ban bi may xale minuit laa daan génn sama kër waxtaani sunu kër bu ma demee samay morom waxtaani ba pare hmm. damay ñëw seen ñu kër ma changé yére am na ñeen ñu ma doon taseel sax fii. minuit amoon na guy bi newoon fii dinaa ko wax sax waruma ko woon a wax boori boo génnee Kërissa dafa tàkkoon ay jamono ñi dëkk Kërissa dinañ ko xam bu ñu déggee vidéo dafa tàkkoon ay jamono ci tooy tooy bi noonu bi jinne ji deewee dafa tàkkoon dafa tàkkoon bu guddee nii laa daan aw booba fii dara amu fi nii laa daan aw dem Kërissa ma daan ñëw ci taatu guy gi su ma damay dem ci benen quartier lu melni comme par exemple ma ñew sama buntu kër melni ni ku nekk eh, buntu dem waxtaan ba 4 h du matin ma ñew léeg sama papa lay fekk ci buntu kër gi mu di ma soow waru mako wax sax secret la damay soow li ngay def ni lu tax nga def ko parce que mom tamit yalla mayoon nako ko hmm. waaye jinne mo amul sens ben sens nit ñi nag bëgg nañ ko jamono yi waaye amul sance jubóog yàlla moo am sens. Mm-hmm. jubóol yàlla nga di ko ñaan mu lay may. jubóol ak yàlla nga di ko ñaan mu di la ko may. jubóol ak yàlla nga di ko ñaan mu di la may alhamdulilahi rabil alamin di santaat mbokku taalibe yëpp yi nga xamante ne rek ñoo ànd ak ñun ci Nasrou Média TV di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Euh, di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawféex yàlla defal ñu kattan ba ñu mën a dajewaat suñu beneen émission ci pajum cosaan ànd kook suñu sang suñu xarit suñu sëriñ Mame Mbaye Diouf yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba beneen édition incha allah ci kattanu yàlla looy tàggoo maam. waaw as jërëjëf. ñu santaat yàlla bu baax di sant sëñ di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëñ Assane Kane fi yàgg lool te ànd ak wér ñu di wax ne koo xamante ni yàlla dafa dogal say fami amoon ay tuur te yàlla dogal nga yor njaboot goo bëgg ñu mucc ci tuur yi na nga wut reeni xereñ reeni xereñ garab bu ñuy wax xereñ na nga wut reen yi ñetti reen ñetti galan nga koy def ñetti galan benn galan bu ne nga lonk nga bënn ko lonk ci weñu përëm bu xonk xale bu ko takk yàlla dina ko musal du daanu rab du ko dugg yàlla dina ko musal du daanu rab du ko dugg bu dee jànq ju ndaw ji nanuy sol ñaari tubey ndax rab ci suuf la lay jaare pour man la dugg su la duggé ci sa suuf dalay caaxaan lo su da la duggé ci sa kaw jumbox dalay def lolu bon dañ ko bay xalaat bu la duggé ci sa bir sa souf awra dalay def lolu bon su la duggé ci sa kaw jumbox da da bu dee sa souf awra la la duggee dalay moy yo la yalla caaxaan lo su la duggé ci sa kaw jumbox dalay folo manam def lolu bon di jël alal ak nan sangara ak yeneen yu bon yi ci yépp jigen ñang fi def mm-hmm. kon nañuy wut ñaari tubéy ñu di ko sol gone yu góor yi ñu bàyyi saw ci mbedd kuy saw nanga dem ci wanag bañ saw ci mbedd boo génnee sa kanam di saw dala ciy jaar mën na laa def loolu bon kon reenu xereñ may naa ko ñépp gàllaaju rab la ku ko am rab du la yàqal jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu من نبرا أنه وما تدبر